le président jëloon ba mu tax nga jël risque politique yi nga jël yëpp. président jëlul benn engagement. ah. jëluma benn risque politique. si si je fais de la politique. si c'est différent. en allant à contre-courant. de Yewwi Askan Wi. mooy Yewwi mouvement de soutien bi ngay wax noonu. Yewwi Askan Wi non mouvement de soutien c'était c'était votre grande coalition. une coalition pour laquelle vous vous êtes beaucoup donné. si tu peux me laisser parler avec les Sénégalais ñu ngi may seetaan cette coalition ne se bat pas. pour les intérêts de toutes les personnes déclarées candidates cette coalition fan ngeen ko mësee dégg mu xeexal Khalifa Sall fan dégg mu kasal Khalifa fan kenn fan ngeen ko mësee dégg mu taxaw ne xalifa Sall dafa nar a bokk fan on sort des élections lan nañu wax ne ci élections yi dañu ne dañuy dem local ensemble dem législative ensemble suñ ci génnee ku nekk am na droit nekk candidat ñoom ñu jàpp ne ni y' a qu'une seule personne qui a le droit d'être candidat c' leur droit man damay politique du ma fooy suma xelal dinaa la wax dara ma yokk ci dara ma lu tax ñu dàq ma parti socialiste Ousmane Tanor Dieng nekkoon suma bàyyi ci politique suma xarit ma soppee on m'a exclu du parti socialiste avec tous mes camarades pour une question de principe ñun dañu nar a am candidat ñun tey koo gis ci dëkk bi te yàlla baaxee ko lu ko yàlla baaxee ñun nangul nañ la ko parce que ñun ay jullit lañu dañuy gëm yàlla te ci wóolu yàlla ku ñu ëpp ñun ku ñu ëppale mbooloo nangul nañ la ko ku ñu ëppalee riir nangul nañ la ko ku ñu ëppalee sax chance nga doon président du Sénégal nangul nañ la ko te dañ la ko yéene wante nous some sommes des dañu am droit am suñu candidat ñu dàq ñu parti socialiste parce qu'on avait dit qu'on on veut un candidat fokkati tous nos mandats sànni ñu ci kaso bi deux ans et demi ñu muñ te ànd ci ak yàlla am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur tey nag on veut nous faire croire qu'on est dans une que pour un homme et pour un parti nous avons décidé de nous battre pour nous-mêmes lu ñu yàlla may ñu jël. mais Barthélémy. lu ñu yàlla may ñu jël. la s'il vous plaît. on peut vous imputer la responsabilité xam nga lu tax. waaw yow am na moment yoo xam ne ci biir euh, xeltukat yi dañ doon laam-laamee est-ce que yow yaa ngi jege xalifa sàll ba tey vous étiez avec Ousmane Sonko comme un binôme. comme des jumeaux et vous ne parliez que Sonko même xalifa Sall masul toog conférence de presse yeewi askan bi mu wax ci boppam mu wax ci ay jafe-jafeem waxu Ousmane Sonko rek lay wax à un moment donné tout le monde était à terre Ousmane Sonko usmaan Sonko bu leen dem ba ci biir mbir mi nak nakari leen yéen a ko indi. Maymuna moom wala Maymuna <laughs> écoute ma <laughs> yow xam nga ma bu baax a baax Khalifa Sall ak man mii ba ñu doon wax lu ñu doon wax man gis kenn lu ñuy dudd tey nii wax naa ko ko noonu wax ñaari at ci ginnaaw ma ne ko lii mooy am mu ne ma lii du am ma ne ko lii mooy am nga ko wax ma ne dama ne lu ñuy dund tey nii lu ñuy dund tey nii lu ma ci noroon wax wax naa ko ku ma ko noroon waxal ñaari at ci ginnaaw ma ne ko lii mooy am lii mooy lu ñuy woy injustice bu ñuy dund ñun depuis des années mu ne ma lii du am ma ne ko lii mooy am ma ne xam nga lu tax parce que lu tax ñu teg ñu ñun lu ñu gars yi teg pour ñu bañoon bokk ci élection deux mille dix neuf exactement ce sont les mêmes raisons qui se produisent ça veut dire que tey on a décidé d'éliminer des gens parce que des sondages leur donnent partant ou vainqueur ou bien des sondages considère qu'ils peuvent déranger man tey may Maimouna nangu naa ñu saaga ma nangu naa ñu xas ma mais du nangu nag mooy attaqué nangu naa loolu yëpp pour que Sénégal mën a am